bis fekk nga gis ku ma woo ci wàllu liggéey koo xam ne daal la maa ngi lay sant di la gërëm yow laa def sama sëriñ mm-hmm. ba nga ma joxee nangam ba tey ci laa am liggéey mm-hmm. kaaw kuñ dàq koo xam ne tey jii naroon nañ ko dàq ci place am mm-hmm. mu defoon daal di tourné SDV ci port ku ne xam na dañ ko tuumal problème mu 94 millions gannaaw ci ndax yàlla moo yor ndimbal lépp ci moom lañuy tawakul ñoom nga xam saa su dëkk suñu jëmi ji jaarwaay yi ñu jaar moo tax ba dàquñ ko te déclaré woon nañu ko dañ ko dàq. soxla yi dañoo yem. xam nga soxla million daa am. soxla deux cent am soxla téeméer am. soxla fukki junni am. soxla cent mille am. soxla deux cent mille am. noonu la noonu la mbir yi mel. donc maanaam yow su ma la déggee ci wàllu ñaan yàlla tey joxe lu rëy am lu rëy mu ngoog. Sëriñ Saliou Mbacké ba nañu gaaña fi nekkoon jàpp la yaa gëñi bi koon yow mi nu may kun fa yakoon gaawe nu ngir sa yërmande sëriñ bi yar nu yor nu bu ñu ree asalaamaaleykum mbokku internetu Sénégal TV amati nañu mbette ak kontante tey euh, dajewaat ak yéen comme ni ñu koy defee saa su ne tey nag ñu ngi fii cité Apexi 2 euh, ginnaaw hôtel Via Via di dalal nag ndaanaan bu mag bu xam-xamam màcc si wàllum faj cosaan ak aada muy Serigne Souhaïbou Mané sëñ bi nuyu naa la. fay naa la alhamdulilah. waaw mu bàyyi nga nuyoo mbokk internet yi. aywa alhamdulilah. alhamdulilah alladi yusalli ala nabi Mustafa musalli. salaatu wa salaamu ala ashrafi al anbiya sayyidi al wujud sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa ridwani wa tamkin وجل كلامي راشدا ومنشدا وفكرتي نوير قلب ارشدا غناو بي نسمت يالا جولي تي انت صلى الله عليه وسلم ني ني دوكل العالم السامي جي وير مسلم لي خمني تي لا ني دي لين ديار بن يون دي دوكل كوم ني باخو واخي سونو خليفه الرحمن شيخ سيدي مختار يالا يالك يغن في لول تي ما دغور ak mbolem yabutu cheikhuna cheikh abdul ak Cheikh Seck ñëpp ci ñi ci biir ak mboolem kilifa turuq Sénégal yëpp yàlla yàlla doole jàmm ci ñëpp jaay rasulillah merci jërëjëf sëñ bi voilà donc euh, mbokku internet yi tey nag dafa am benn thème bu am solo bu ñu fas yéene waxtaanee tey maanaam euh, wàllum gutum liggéey ak yëngu yi am ci biir sëy yi sëñ bi euh, par rapport ak premier thème bi ma jot a wax mooy wutum liggéey ñëpp xam nañ dëkk bi dafa jafe léegi et que pratiquement chômage bi dafa nekk si benn taux bu élevé ba nga xamante ne que euh, waxuma la ndaw ñi sax waaye mag ñi sax pour ñu am liggéey problème la. Hmm. Euh, ndax yow yàlla may na la côté boobu noonu aussi pour nga mun di saafaral kii boobu noonu phénomène boobu noonu. waaw alhamdulilah ala kulli leen ñu ngi sant yàlla bu baax ci question bi nga ñu laaj ni léegi yàlla dogal na am na ci xaas am na ci jagle ci wàllu. kuy wut liggéey moo xam nga nekk fii moo xam nga nekk bitim réew képp koo xam ne daal jëflante nañu ci wàllu woowu bu soobee yàlla boo ñëwee yàlla dina dimbali incha allah ci jaaruwaay yi ñu ci war a jaar. wut li am liggéey nag doon na mbir boo xam ne lu lëmbee dëkk bi la. ñii léeg-léeg nga gis ñu ne la crise moo am. yooyu yëpp mën naa nekk. ci lu mën a nekk ci lu mën a nekk la. waaye itam. nit it dina am gàllankoor ci jëmmi jëmmam ji ba du mën a am liggéey danga gis koo xam ne dafa bëri ay yàqu-yàqu daanaka lu mu dugg mu yàqu daan na liggéey mu ji nga gis liggéeyatul wala nekkoon na bitim réew mu fay liggéey am sutura am fa teraanga ak léppam nga jékki-jékki gis mu jékki-jékki lépp kale as gi mu dencoon mu koy roppet di ko roppet wala boog mu koy dugal ci ay mbir mm-hmm. pour mu mën ko jural dara mm-hmm. lépp daal di yàqu nga xam ne fa mu liggéey fa mu doon liggéey di fa tibbee ngir man denc mm-hmm. bloqué na xëy nañ ko dàq ko ci place ba te xamul lan moo waral ñu dàq ko fu jëlee ko fa dégg nga waaye nga gis koo xam ne daa ne ci place ba rek di fa liggéey jékki-jékki am fa jote boo xam ne du ko tay du taye fa mu def fa ma masal sàcc fa dara ñu dàqu wala mu jël fa kenn ñu licencié yooyu ay gàllankoor la yu doon ci nit wa illaa koo xam ne ñu ko liggéey ba liggéey bi ñu ko liggéey mënta dem fenn ñu jël ko da ngay xam ne fu mu déposé kenn ko jël gis koo xam ne euh, jàng yi mu war a li mu war a jàng fa mu war a jaar gi yëpp jaar na fa diplôme yi mu war a am yëpp am na ko mm. waaye mënta liggéey mm. fépp fu mu déposé ñu ko jël mm. loolu day doon gàllankoor ci nit léeg-léeg nit umur si nit dana tëju itam ba waral loolu danañ ko liggéey itam ba waral loolu hmm. ok ok donc euh, ni ma la déggee ngay wax aussi sëñ bi dafa mel ni yow domaine boobu noonu sa domaine na da ko maîtriser parce que euh, contexte bu nekk c'est-à-dire nit aussi situation boo ci war a mën a nekk rek hmm. euh, faram-fàccee nga ko hmm. c'est-à-dire da nga da nga kii bi wala nga maanaam c'est-à-dire Euh, comme nu ma koy waxee da nga da nga da nga génne problème yëpp da nga poser le problème dans xam nga n'importe quelle situation léegi mu bu ñu def aussi situation par situation su ma jëlee exemple comme ni nga ko waxee euh, ñi nga xamante ne que tey jii euh, jàng nañu am fépp fu ñu jaar fépp fu ñu war a jaar mais mënuñ ci dara wax nga léegi léegi waxu crise wax nga léegi aussi incapacité état bi. Mm. yow li nga xamante ne que tey jii crise boo xamante ne phénomène bu kii monde bi yëpp. Mm. ak loo xamante ne que état ko faj yow noo koy mën a fajee. waaw ala kulli aal dinaa xam ndax kii. Mm-hmm. li ko tey liggéey liggéey moo ne mm-hmm. moo ko dem. Mm-hmm. wala xam na ko xam ne cat da ko jàpp cat day dugg ci base boobu. ba nga xamante ne loolu daal du dox. waa crise la. crise mondiale nag gisewul dara ak cat sëñ bi. waaw moom laa dama xam nga dama cité ay exemple yi nga xam ne mooy cause yi nga xam ne moo mën a joxe. Mhm. xam ne euh, euh, sànq dégg ko bi may maa ngi naan la. Mhm. liggéey ñàkk liggéey li koy waral. Mhm. bi ci la ba tey. maanaam crise mondiale. yaa ngi dégg wala nguur gi. itam waaw ah, yow kay nekk yu bëri mais suñu pàcc. nga xam ne ñun fa la féete. Euh, moom laa ñëw wax ci ne lii ak lii mooy doon gàllankoor. Hmm. waaye dama joxe en général rek hmm. wane ne lii ak lii dana waral tamit ñàkk xëy. ok waaw hmm. loolu la. voilà donc léegi yow euh, par rapport ak loolu yow naka ngay procéder. waaw man naan bu fekkee ni koo xam ne dama la xool. gis ne nit ki danga am gàllankoor sa bopp. mooy soit nga um wala nga tëju. wala ñu liggéey la. yaa ngi wala cat jàpp la.

Euh, lii moo ko waral ndax tubaab bi tey jii moo ko laaj boo ko waxoon. Mm-hmm. du ko mën a gëm. du ko mën a am na tubaab boo xam ne gëm ne. Mm-hmm. lii euh, am naa sama diplôme dem naa jëluñ ma. Mm-hmm. mënul gëm ne dafay am. ko baax wala yooyu. wala dañ ko liggéey. waaw ki nga xam ne xam nañ yéen mu baatin yéen. xam-xamu baatin te yàlla may ko moom mooy mën a xam loolu. Mm. ok mais léegi. Euh, si cas noonu est-ce que yow am na si yoo xamante ni que jot nga ko réglé. parce que ah. bëri na aussi quand même ah, tey jii ay. ay ay ay borom xam-xam yu melni bon ça à dire ñi nga xamanteni que dañuy ne ñom am nañu xam-xam bi di di di woté loolu non comme quoi que ne loolu ñun mën nañ ko faj mën nañ ko régler mais est ce que yow réellement euh mën nga ñu wax ki yan ka ak yan situation nga fekk nit aussi ba génné ko ci si depuis ba nga tambalé yow. am ñun bi ñu tàmbalee léegi xam naa bu ñu koy wax da dana émission bi mën naa jeex té du fi nak ñun bé ba à basage. ñun tubaab di ko waxé té dañ tambalé asalaam nak dañu juddoo ci kër asalaam. Mm-hmm. moom lañ xam moom lañ tam mm. moo tax jaarwaay yi yemuñ ci loolu jàng nañ fu nekk jaar nañ fi itam mm. am na kilifa yoo xam ne yàgg nañoo jëflante ñoom mm. loolu moo ñu dooleel ba jëmbi tey yi ñu nekk ji sëñ bi ku neen daal ba léegi daal waxoo nga mu lu leer quoi dafa ne la nga expliquer ma ay cas yu concret yoo nga xamante ne que jot nga ko quand même euh, moom naa la xam nga du jeex xam nga tey jii nee naa la des herbacées. limal ma rek jox ma quelques exemples. xam nga lim. Hmm. man dama ko baaxoon man dama baaxoon di lim ay naan diw ñaanal laa ko foofu. Hmm. day dem ba dugg ci loo xam ne. Hmm. xam na gaal bu ñu ko duggee. fa ñuy teel jee xaw ma ko. sama nature la. sama sama bind la. waaye daal ñi may sarante xam ma xam nañ ne te ma yàgg jëflante ak ñoom ci wàll woowu. yàgg nañoo gis seen résultat ndax bis bu set sekk mi xam nañ ci dara ñu ne ci kër gi. li si jot nga gis ku ma woo ci wàllu liggéey koo xam ne naan la maa ngi lay di la gërëm yow laa def sama sëriñ mm-hmm. ba nga ma joxee nangam ba tey ci laa am liggéey mm-hmm. yaa dégg mm-hmm. du jeex du xaj du jeex ndax loo xam ne bu ba nga tàmbalee ba tey nga bëgg a lim ni ñaanal naa diw ñaanal naa kon non waxuñu nga lim yëpp mais quand même xam nga ñàkkul par exemple waaw bëri nañ ay cas ay cas yu critique kaaw hmm? kuñ dàq koo xam ne tey jii naroon nañ ko dàq ci place lu hmm. mu defoon daa détourné SDV ci port ku ne xam na ko hmm. dañ ko tuumaal problème mu 94 millions. Mm. gannaaw ci yàlla. ndax yàlla moo yor ndimbal. Mm. lépp ci moom la ñuy taw ko ñoom daal mm. saa su dee. ñu jaar moo tax. ba dàquñ ko te nañ ko dañ koy dàq. dégg bi. waaw am nañ koo xam ne tey jii nekk na ci Angleterre. mu waroon fay impôt. am problème fay ñu war ko euh, kii nu ko waxee sax saisir. ay bagages am gannaaw ci yàlla ci numéro mënul yàlla hmm. ñu ñëwtee ñu saisir ko hmm. ak yeneen ak yeneen du jeex. ok waaw ok voilà donc mbokku internet yi ma leen di fàttali ne tey jii ñu ngi dalal euh, ndaanaan bu mag sëñ Souhaïbou Mané fii ci APEXI 2 euh, ginnaaw le euh, Via Via ku ko bëgg contacter nag mun nga woote ci 77 152 66 03 76 926 10 16 10 926 16 10 70 209 92 93.

si si ñaawteef boobu noonu mu jot a def. mais est-ce que des fois seen xel dina dem seen digganteeg yàlla. ngeen xalaat aussi que ne ki dafa tooñ ñu bugg ko ci teg ay daan ngeen ñëw sobe ko ci. waaw xam nga xam nga ndogal moom ndogal yàlla yi la. Hmm. xam nga jaam moom sabab rek la mën. Hmm. lii lii xew yàlla mooy aji dogal bi moo koy dogal. Hmm. di nga gis nit mu baax lool. gën ñëpp ci ni buñ ko mën a waxee. Euh, ñëpp mën a seere ci moom mbaax mu benn tâche nga xëy rek mu def loo xam du coobareem jékki-jékki jël xaalisu jàmbur ci loolu coobareem wa illaa mu yor xaalisu jàmbur ko ko dénk wala loo xam ne nott yaa ngi dégg mu jékki xaalis tasaaroo ci loxoom te xamul jaar loolu du coobareem. waaw loolu du coobareem tout comme aussi. yaa ngi dégg xam nga voilà ba tey maa ngi ñëw. Mm-hmm. da ngay gis nag koo xam ne. Mm-hmm. situation da koy jàpp. Mm-hmm. ba mu jël lu mu war a jël. te bu sañoon wala bu mënoon mhm. du jël mhm. nga xam ne noon la noon la demee daal mhm. maanaam phénomène phénomène la boo xam ne phénomène bu bu wér-wér la boo xam ne bu dëggu la am ci société bi comme ñu dañoo doon ñoo xam ne nitu diine lañ mënuñu weesu mënuñ ñàkk am benn ba ñeent comme ko yoon bi salaa seen kon rupture yooyu dafay am ci kër yi te it am am bi tamit demewu doon ba ku ne mën a lijjanti soxnaam bu ci nekk sa soxna bu doon ku ci nekk dafa nekk ci këru boppam xëy na mën naa wàññeeku ba tey sax loolu taxul nga mucc ci loolu. li ci dimbali nit dëgg la mooy mu fàggandiku. nit day am ay njabootam. mooy sa soxna sa yëpp. nga fagaru bu dee góor gi. nga fagaru sa kër jàmm di fa dox. am na gàllankoor yu mag yoo xam ne koy def nga suul ko sa kër. jàmm rek a fay am jàmm rek a fay am. benn coow dafa am benn problème am. waaw ñu seet bu dee jigéen gi. Uh-huh. mën nga fàggalu sa bopp ba nga xam ne sa diggante ak sa borom kër kenn du ci dugg maanaam kenn du ci xaj. surtout falaa bëggoon pour yàgg moom. Hmm. Hmm. Hmm. falaa bëggoon falaa bëggoon. waaw parce que seetlu nañu déjà pratiquement li ëpp aussi si cause divorce yi day fekk peut-être que euh, mbokk jëkkër ji wala mbokk jabar yi. ñuy ñëw dugg ci sëy ah, bi wala ci mbir ci mbir mi wala ku ji ku góor ki aussi du yem jékki-jékki rek bàyyi jigéen ki dem nekk si lu ko neex. waaw vice versa. waaw ñaar ñaar dafay am parce boo xoolee. xam na da ngay gis bu dee jëkkër ji. Mm-hmm. comme tey jii man sax dañuy nekk bitim réew góor ñi ci bëri daanaka tooguñ na ma yàlla bal mm-hmm. nekkee daanaka ñu ngi fa nekkee nu leen neex da ngay fay gis sax ñoo xam ne dañ nekk seen mm-hmm. fa toog duñ leen mën a canaliser. duñu toog dañuy dem di taxawaalu ànd ak tubaab yi foofu. wala dem nekkaale wala yu kenn xamul. yoo xam ne dañ ko fay dund wa illaa seen soxna nekk fi ñu di taxawaalu foofu. wa illaa tamit nga gis ñoo xam ne seen jëkkër day nekk fële ñoom ñu nekk fii mhm. ñoom ñuy taxawal ñoom seen jëmbaw mhm. léegi bu fekkee yooyu dafay am ku ne di ko déggante wala sa jëkkër ay rakkam ñoo di ko di gis li ngay dund fii naan sa jabat naan foog problème am mhm. wala ngeen dëkk yi ngeen dëkk yaak sa jëkkër bu sa jëkkër benn ne benn nga ne ko fukk est-ce que loolu mën nga ko saafara bu baax a baax bu dee ci jigéen mën nañu defal loo xam ne sa diggante sa jëkkër kenn du ci xaj seen diggante day noo nepp loo ko mu ne góor nga wala góor goo xam ne tey ci sa jabar loo ko say waaw rek ci la uyu du xool feneen du taxaw feneen mm-hmm. loo xam ne am na loo xam ne boo ko defee sa sa euh, maanaam góor bu ko defee euh, déeweeku sàkkaram mm-hmm. boo sa jëkkër sa soxna mm-hmm. keneen ku keneen ku beneen góor ci jëmmi ci àdduna mënu ko tiim mënu ko tiim waaw ah, bu ko tiim day yomb tey am ma euh, na ci loo xam ne tey ji boo ko defalee sa soxna am nañu koy defee nga jam sa loxo dégg nga tey ko jëmee la jox hmm. boo ko defee sa soxna dee rek lañ mën teqale dara mënu te ngeen ngeen teqale ko tey du xool benn góor bu mooy yow hmm. yooyu dafa am hmm. yooyu nag dañuy bàyyi léegi maanaam jàppee ko ne if ordinaire rek comme jikkoy tubaab yi yooyu nag fii ak mu ngi am coow du ñàkk am ci kër yi te it goro yi léegi dama yàlla baal tamit na yàlla xam na lu ci bari ñoom ñoo tas sëy ak rakku jëkkër yeeg rakku jabar yi waaw léegi gis nañu beneen phénomène yi tamit xam naa mooy doon laaj bu mujj bi avant dernier laaj bi mm-hmm. parce que ñu ngi xel waxtu baa ngi ñu waaj a dab euh, gis nañ ñoo xamante ne que aussi dañuy ne par exemple bu ñu seyee ku jigéen bi bu ñu xasee ba tàggatook ñoom rek kooku mënatul du mën a ci am jëkkër waaw loolu dafa am loolu dafa am loolu secret mag la mm. yoo xam ne euh, mag ñi dañ ko daan liggéeyee loo xam ne buñ ko jëfandikoo mm-hmm. keneen ku dul

moom ci coobaree mu divorcé ak soxna si. xanaa kay boo divorcé ak nit ki. di ko bàyyi nag quand même mu am droit am beneen jëkkër. mais doo ko bàyyi noonu aussi mu dem. fekk xanaa doo dee gis est tey jii. saafara loolu mën nañ ko def mën nañ ko dindi. Uh-huh. man nañ ko def mën nañ ko dindi. Mm. li tax nga gis ñu ñu bëri di ko def mooy. Mm-hmm. du ñuy bëgg. Mm-hmm. seen soxna rëcc leen. waaw yaa ngi dégg. Mm-hmm. tey bu fekkee tamit waaju baax nga am na jox li ci ëppoon suñu kilifa yu baaxee la doon. nga xam ne nit ku baax sell jur ñu baax du bëgg tey ji mu yor njabootam mm-hmm. euh, soxnaam mm-hmm. mu jóge fii mm-hmm. keneen koo xam ne tey ji tekkul dara bëgg koo yor bu njëkk lu mel noonu moo moo tax waaw ñu ko daan wax ko mbëggeel koo xam ne doo bëgg mu rëcc la yaa ngi dégg te soxna yi tamit bëri nañ ci ñoo xam ne mel nañ ñoo xam ne maar détail ci jikko léegi bu fekkee ñu laa génnee sëy bi da nga am na ñoo xam ne ñu koy tëkku ne ko pour yow bu soobee pour ku dul man mm-hmm. dootu la dal bëri na fi mm-hmm. da ngay jigéen ñu bëri ñoo xam tey jii toog nañ tas bañ keroog bañ dajee seen sëy mm-hmm. lañ gën a dégg alxayri li ko waral mooy secret yooyu moo ci nekk ñun nag am nañ secret yoo xam ne boo ko defee mooy dindi loolu waaw léegi sëñ bi parce que wax nga fi lu am solo te yaakaar naa ne sénégalais yi lii dina leen intéresé trop yéen mbokku internautes yi nee naa leen ñëw leen ngeen seet sëñ Souhaïbou Mané fii ci APEXI 2 ginnaaw hôtel Via Via wala boo ko bëggee jot wooteel si 77 152 66 03 76 926 16 10 70 209 92 93 sëñ Soy euh, yow say mbir mbaa tàngu noonu mbaa kii sa loxo tàngul maanaam li ngay liggéey mbaa dafa cher wala. ah Abdoulaye dañ kem li nga jëf rek am. li ngay jëf rek. moom nga am yàlla noo toll ci moom rek mu toll mu toll ko ci yow. maanaam. maanaam tey jii. Mm-hmm. yàlla ki la ko gën a jege. Mm-hmm. moo la gën a mën a jëriñ ci moom. Mm-hmm. tey jii njort ne kii kat am na jaar mën na faa jaar yàlla dégg. comprendre nga tey ya euh, euh, masal ma jox exemple. sëñ Tuba. li ñu yàlla rek la ko yàlla fay mm-hmm. tey ba kenn dootul gisati keneen ku mel ni sëñ Tuubaa ndax ximmaam ak fi mu toll ci mm-hmm. moo tax mu egg foofu moo tax mu tey yaa ngi dégg nga yaakaar aussi waaw mun yaakaar aussi moo fort xam nga ni tey mun na am soxla bu diis fekk poche am demeewul noonu soxla yi dañoo yemal xam soxla million am mm-hmm. soxla deux cent téeméer am soxla fukki junni am soxla cent am soxla deux cent am noonu la noonu la mbir yi mel. donc maanaam yow su ma la déggee ci wàllu ñaan yàlla tay joxe lu rëy am lu rëy mu ngoog ah. ci wàllu ñaan yàlla daa am secret yoo xam tey jii doo ñëw jox ma cent mille francs ma jox ko mm-hmm. dama ko def secret boo xam loo koy am boo koy liggéey mm-hmm. danga nga liggéey yëpp toog une semaine di ko liggéey mm-hmm. wala loo lu ñuy bind la toog une semaine bind ko kooku di nga jël benn waaye ñëw rek jox la benn cent mille bi ñàkk fay def nga jël ko jox loolu pour lan. Ah, cent mille kat tuutiwul. te jamono ji ñu toll nii. waaw cent mille ku am cent mille da ci liggéeyu cent ku am fukki junni nga yem ci liggéeyu fukki junni dégg nga <laughs> maintenant dafa ñëw démb barki démb ñaan ñëw naan ma vingt mille laa man ak suñ bi du ma liggéey loolu am na waajur fa jógee ba gudóom ñëw ci man yaa ngi dégg sama ko lañ mën nañ gëm bàyyi ma fen mm-hmm. mu ñëw ne ma vingt mille laa man ko dama ñibbi man du ma liggéey loolu loolu du ma tàrral gudóom Casamance barke Seexul Xadiim loolu am na yaakaar loolu du ma tàrral parce que xam nga problème mooy xam nga problème mooy lan mm-hmm. nit ñi daf bëri ñoo xam ne dañoo goree mm-hmm. fu mu toll nii boo leen ne ah liggéey ñaari junni am na fi dañuy bañ tey ñi boo ñoon jox ma benn kër na am barke lu ma ñëw yëkkati fàtte fàtte kese jox la te doon def fàtte chifa eh, li kulli da day fa bepp jàngoro hmm. doo gëm da nga ki kii joxuma dar duñ ko nangu li ñi bëgg moy nga liggéey lu wër hmm. gëmuñ nga yëkëri ben kër rek jox leen comprendre nga hmm. man nak du ci xolo du ci ciow sama liggéey may liggéey mu ngi fi tégué ku bëgg lu bari bo joxee lu bari ñu ñu liggéey la suñu kéem kàttan boo joxee lu tuuti tamit ñu xol yu tuuti rek jox ku joxe bu ñu jox la comp yow la bëri. voilà mbokku internet Sénégal TV. Euh, ñu ngi leen di sant bi leen gërëm. kii nag mooy sëñ Suwaay bu Mbacke euh, sëñ Suwaay bu Maane. sëñ bi bëri nga ci morom di bëri Suwaay bu Mbacke. waaw ba tey mhm. def ceeg sot ci. yar gi la woo voilà donc euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw xanaa di leen gërëm yéen waa Sénégal TV. Mhm. di leen ndokkeel baax suñu liggéey suñ diggante ak yéen gis nañu saa su nekk wax dëgg yàlla ñu nekk fekk ñu nekk fee nekk ñu ngeen di jëflanteeg ñun. saa su su nekk daanaka gis nga bi ngeen di ñëw léegi rek tàggu leen ma daanaka da ngeen dama ne gis leen ngeen di jawee ma xanaa di leen sant daal yàlla yokkal leen seen maqaam foofu ngeen séntu egg rek yàlla eggal leen fi ci anam yu gën a di ñaanal beneen yoon Cheikh Sidil Mokhtar comme ni ko mbaax waxee yàlla yàlla yàggal ko fi lool tamante ko wér njëmatu Seexul Xadim gépp ak Sénégal islam gépp yàlla na fi islam ball ba daj fi kàpp bi jaay Rasulullah jërë ngeen jërëjëf euh, chers internautes euh, voilà lii lañ leen indiloon tey ji euh, si seen émission ak sunu mbokk tradipraticiens yi donc tey kiñ ñu doon dalal nag mooy ndaanaan bu mag sëñ Souhaïbou Mané ñu leen di jox dig daje beneen yoon ci beneen numéro